ne ndax am na yeneen manœuvre privée man maa ne amul manœuvre privée ndax ba nga paree pare naa ci waxtaanoo ceeg Karim Wade ndax waxtaanoo ceeg Ousmane Sonko ndax waxtaanoo ci avec des émissaires de de de, de Macky Sall ndax waxtaanoo ak Alioune Tine ndax waxtaanoo ak Pierre Atepa Goudiaby non non non aha bi ma paree def suma déclaration Alioune Tine dafa ma woo ne ma affaire u report day waxoon nañ ko fii Sénégal ça posé problème mais problème yi nga posé daal c'est réel ma ne ko man daal li ma doon wax wax naa ko pare naa ci yéen nag a fi nekk di def ay démarches lépp loolu mu mun def pour dëkk bi tegu si jàmm ñu def à part lui il y a d'autres gars de la société civile qui m'ont appelé qui ont été d'accord sur l'idée je le dis moi je ne suis pas le militant de l'idée wax naa li ma doon xalaat pare naa ci sama parti bi la ma wax waxuma ci ak Atepa waxuma ci ak keneen waa ñëpp ñi nga xam ne politiquement ñi ma woo